sëriñ Cheikh dafa wax ne yéen mbooloo mii nga xam ne dangeen a jóg ngir wuy si woote bii nga xam ne sunu jàmbaar ja di murid saadix ba di sëriñ moo Modou ya moo ko sosoon ci 1983 fii ci Daaru Salaam wax ne at mu jot bu ñu àggee ci weeru janvier ku yaakaar Daaru Salaam na nga ñëw fii ñu dajale li am jox ko ki fi nekkal sëñ Touba yàlla dogalit ngeen jóg ngir loolu daje fi ak soxna Bali mu sëriñ Amidoun mu def taraanga yii moom itam ngir def ko ci bis boobu ngeen daje fi nag ak koo xam ne bu fi ñëwee day wax na ne borom kër gi moo fi ñëw mu di sëriñ Falilou moom sëriñ Mbacke Soxna Lo moom sëñ Cheikh Gaynde Fatma moom Cheikh Mamadou Moustapha sëriñ Cheikh wax leen ne dafa bëgg ngeen xam seen digganteeg moom xamit tànk yi ko tax a jóg xam ne boroom kër gu ñëw ci këram rek la ndax sëriñ Modou Moustapha. moo moom la yàlla dogal moo yar sëriñ Modou Rokhaya moo ko tarbiyee it lu ne ci moom moo ko ci def ba sëriñ Modou Moustapha yabal ko fii ci Daaru Salaam delloo ko sëñ Modou Mamoun na ko sama a ku suuxat dana jebbi ku suuxatut dana jebbi kon bu yàlla dogalee yéen ñëpp ngeen jóg ngir jëmmi sëñ Modou Rokhaya ñëw fi fekk fi sëtub Cheikh Mamadou Moustapha mu ñëw fi day mel ne rek daa ñëw di seere si kàddu ya maamam waxoon xam ne njëmbat la jebbi na moo taxoon sëriñ bi ne daa bëggoon ngeen may ko mu dalal ko mu ànd nag ak rakkam di Serigne Modou Rokhaya moom Serigne Amidoune Serigne Amidoune ku ne xam dem ni mu demee ak Serigne Modou Rokhaya waaye mu duppee kii nag sëñ Modou Rokhaya ba noppi yëkkati ko jox ko ko mu dem xaritam ànd ak moom kon su ñëwee xam na ne lii ngeen nekk mooy liggéey bi te moo ko tax a génn waaye nag daa xam ne borom yëf yi daa ñëw ci yëf yi mu bëggoon ngeen may ko ay minutes yu néew rek mu dalal ko wa jàqalanteeg moom ay kàddu su ko defee ñu wéyal liggéey bi nee na ba noppi itam dikkam gii. dikkam gii. seere la ci. seere la ci. ne seenub liggéey nangu na. ne na. nu nuyoogu ma nee na nuyoogut ak waaye nag ginnaaw sëñ Modou Moustapha ñëw na ci toogaay bi. te moo doon taxawal sëñ Modou Rokhaya. te moo doon taxawal sëñ Modou Rokhaya. firnde kon loolu firnde la ci ne liggéey bi moom nangu na. nangu na ba noppi. <laughs> jërë ngeen jëf. ci moom lool. nee na amuti kàdduwaay di la sant rek. nee na fii moom sunu kër la. sunu kër la. nee na di rafetlu bu baax sa taxawaay. nee na ndax yow ci wàllu gune da nga leen a taxawu ñoom ñii. taxawu sax yoon wi. <laughs> nee na daal lu ñuy rafetlu la. nee na ñu ngi lay sant bu baax te di la ñaanal yéen a yow way jur ya amoon ak maam ya yàlla nga ko àggaleeg jàmm te ànd koog ñun ci barke sëñ Touba na xolam sedd na guy waaw nee na mi ngi lay dénkaat boppam itam di sekku it nag ci ñaan yi fi nekk ndax fi moom barabu sëñ Touba la nee na sàkku nañ fi ñaan baax. ndeysaan mooy sama lépp moo tax bi kii ma ne moom nañ mën a def moom nañ fi ñëw bañ bañ ko toog ak moom ndax jàpp nañ boo toogee moom toog ngaa waa def lépp ndax moom lañ am ndax bañ bañ bañ ñu koy jox ñu xam ne man na damaa xam ne suñu amee sama waay wala man ma jàpp ne suñu motu waxkaay moom it mu ñëw wëyal lool yàlla jàpp ñu def ñu ne boppam amiin